soxna Mbaye ak wedd naa la bu yàgg mbay Mbaye ngi ci jàmm alhamdulilah gis ngeen kaaw titi bi yàlla xam na ne ay magi jëmm ñu ngi ciy wax te dara xamuñu ko ci ay fen kese la parce que Mbaye Thiam mii dañ koy bàyyi xel mais dafa wax ne paa bi dafa jaawale titi bi muy wax ak titi bi bokkut barki Cheikh Ahmadou Bamba nga wax ne titi mos sa say mbàkke titi boo ñëwee man ma yóbbu kër gi mos sa say mbàkke ma naan mbàkke fii Touba titi dañ ko fee maye ñaari fan la am daw. dem yoonam billaahi titi doon na sëy fii li ngeen di wax xamu leen ci dara waaw xamu leen ci dara titi nday faatu tin la tudd paa bi góor gi tin la tudd xam nañ paa bi xam titi kër gi mu doon sëy waaw site internet bu ñëw ñu yóbbu la kër gi titi doon sëy ñu wax la lu leer nañ lu dañut ay sokook ay baaraak ñoom ñëpp lañuy fen rek wóor na suñ tubaa li ñuy wax dara xamuñu ko ci bu leen defe ne ñun dañoo jël suñu engagement jékki-jékki di wax luñ xamut déedéet ñun dañ ñuy diglu ku ñuy diglu day wax tuuti tuuti lu am njariñ ñun duñ duñ wax luñ xamut yàlla xam na ne yéen ñu wax ne maam Titi mosu nekk Touba mosu fee sëy waxu leen dëgg da di fen billaay da leen wax lu ngeen xam sëñ bi bu leen gis Titi siiw paa bi ni jur naa ko problème am ngeen bëgg a farak Titi naan ay kim jaama faal soxna si dañ lay diglu ci ab nga nekk del wax loo xam Titi barke Serigne Touba Mbakke sëy na biir Touba gii xëy dem yoonam fanaanu fi xawma ñaari fan nga naan ay kii paa bi li mu wax dëgg la Titi mas naa sëy Touba. man ku ñëw ma wan la kër gi titi doon sëy xaa ah, loolu moo gën a ngas di wax dëgg ñi ciy wax te xamuñu nañ noppi ñun li ñuy wax dañ koo xam ba leen fen ku ñëw ma yóbbu la kër gi titi doon sëy barki Serigne Touba mbakki lu ngeen bàyyi di wax lu ngeen xam waay